ko jox kaamilu alquran danañ ko jox toxfatul awa danañ ko jox naxu danañ ko jox laxdariyu danañ ko jox ñeenti junni loolu it moo valable ci ki jël quatrième ak troisième ki nga xam ne moo jël deuxième dana am loolu ba pare am juróom benn junni ki nga xam ne moom la yàlla dogal mu nekk ca kanam dana am loolu ba pare am ñaar fukki junni kon jar na jàngi alxuraan fi mu ne nii guddi yi ñu toll xale bu ñu jox ñaar fukki junni njaay ni dañ ci mën a am saako ceeb ak tàndarma kon jëre ngeen jëf yal na leen yàlla def mag kon programme bi ñu xam ne rek ñun ñëpp lu koy defar ci lañ nekk te moom la ñuy ñaan suñ borom képp koo xam ne si ñi nga xam ne bëgg nañ ñu barkeelu feeñal seen yéene nañ koy tënk ndax yëfi mbooloo moom lu ci waaye am rek dalay doy ndax kenn ku ne si ñun manoon ngaa fanaane programme bi di jàng alxuraan ba suba ndax suñ ustaas yi ñëw kenn ku ne li nga fi jàng nit mënatul jàng lu ko dàq te ñoom dañoo gàttal kon na kenn ku ne roy si ñoom rek kon xale yi dinañ leen natt ci yii bu ci njëkk mooy ci tajwid ak xifz ada ak xusnu sawt waaye tajwid bi lañ ciy gën a favoriser ñoom ñëpp cent point la ñuy wër cent lañ leen di laaj kon tajwid bi dañ koy noter sur cinquante xifz bi sur trente la xifz bi Ada ak xusnu sawt sur 30 képp ku ñu woo ci xale yi da ñëw jël fi benn enveloppe suaal yi fi la nekk nga jox ko waa jury bi ñu laaj la ci incha allah kon dañuy tàmbali ci ndongo bu mujj bu njëkk bi Baye Jim Bousso xaaru xira الذين آمنوا وعملوا الصالح الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون wa tilka xujjatuna aataynaaha ibrahima ala qawmih narfacu darajatin man nashaa inna rabbaka alimun xakim inna rabbaka xakimun alim ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى wa ayyuba wa yusufa wa musa wa wa ayyub wa ayyuba wa yusufa wa musa wa harun wa aatayna daawuda zabura wa rusulan qad qasasnaahum alayka wa ayyuba wa yuusufa wa muusa wa haaruun wa kadhalika najzi almuhsinin wa zakariya wa yaxya wa isa wa ilyaas kullun min alsalihin wa ismaila walyasa wa zalkifli wa kullun min alsabirin wa ismaila walyasaa wa yunusa wa luuta wa kullan faddalna ala alaalamin wa min aabaihim wa azwaajihim wa dhurriyatihim wajta ومن آبائهم وأزواجهم ومن آبائهم وأزواج ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم ۖ ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده walaw ashraku la xabita anhum ma kaanu yacmaluun ulaika alladina aataynahum alkitaba walxukma wannubuwa فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين وقرأ قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله wallahu waasiun alim walyastaafifi alladina laa yajiduuna nikaaxan xatta yugniyahum allahu min fadlih walladina yabtaguuna alkitaaba mimma malakat aymaanukum fakatibuuhum فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم وآتوهم مما لله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصناً إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين allahu nuuru samaawaati wal ard mathalu nuurihi kamishkaatin fiihaa misbaaxun al-misbaaxu fii zujaaja az-zujaajatu ka-annahaa kawkabun durriyun يوقد من شجرة مباركة زيتونة شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية ولا غربية يكاد زيتها يكاد زيتها يضيء الشيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل واليتامى والمساكين وابن السبيل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 فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه والله سميع عليم فمن بدله بعد سمعه فإنما فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون وله من في السماوات والأرض كل له قانتون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركائكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من فتياتكم ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء لكم مما ملكت أيمانكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم مما رزقنا فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء يخافون أن يتخط هل لكم تخافونهم كخيفتكم أنفسكم تخافون كخيفتكم أنفسكم تخافونهم كخيفتكم أنفسكم kadhalika nufassilu al-ayati liqawmin ya'qiluun bal ittaba'a alladhina zalamu ahwaa'ahum bighayri 'ilm faman yahdi man adalla Allah wa ma lahum fa aqim wajhaka liddiini xaniifa fitrata allahi allati fatara annaasa alayha laa tabdiila li xalqi llah dalika addiinu alqayyim dalika addiinu alqayyim walaakinna aktara annaasi laa yaclamuun منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون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 لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم dalika bima asaw wa kaanu yactaduun kaanu laa yatanaahawna an munkarin facaluuhu labisa maa kaanu yafcaluun tara kasiiran minhum yatawallawna alladina kafaruu labisa ما قدمت لهم لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وما كانوا مؤمنين wa fil azaabi hum xaaliduun walaw kaanuu yu'minuuna billaahi wannabiyyi wa maa unzila ilayhi mattaxaduuhum awliyaa walaakinna kasiiran minhum faasiquun لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم ۖ ترى أعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجد وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى wa ila llahi aqibatul umur wa man kafara fala yahzunka kufruh ilayna marji'uhum fanunabbi'uhum bima 'amilu inna allaha 'alimun bi dhati الصدور نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب السعير نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت kalimaatullah inna allaha azizun hakim maa xalqukum wala ba'sukum illa ka nafsin waaxidah inna allaha samiicun basiir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 تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم فأولئك أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم فأولئك الفاسقين لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم منه قوة وكانوا وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة عظيم وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين وأصبح الذين تمنوا أو مكانه بلمس يقولون ويك أن الله ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا ربنا ويك أنه لا يفلح الكافرون تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين صدق الله العظيم أعوذ بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم تر إلى الذين بدلوا نعم ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ۖ ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة وغرهم في ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات ۖ وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون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 إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات والأرض والله على كل شيء قدير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا ولله الأسماء أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلاً ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا وهو الذي خلق السماوات والأرض وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات الأرض ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا وهو الذي يرسل الرياح ثم قبضناه بصيرا وهو الذي جعل لكم الليل لباسا وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا وهو الذي يرسل الرياح وهو الذي أرسل وهو الذي يرسل وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه ممن خلقنا أنعاما ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا وهو الذي مرج البحر ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا ولو شئنا لأ وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا ولو شئنا لرفعناه بها ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا وقالوا ما لها ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا بسم الله الرحمن الرحيم وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديه فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليسدوا ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه فيركمه جميعا فيجعله في جهنم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 اتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ألم تر أنا الكافرين تؤزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفداً ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولداً وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يس ويسرناه بلسانك لتبشر به المتقين لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم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 إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم خبير الرحمن الرحيم صدق الله العظيم إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إن العليم صدق الله العظيم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لفتاه حتى البحرين أو امضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نسبا قال أراد استوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل اتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا sadaqallaahu al-aziim. bismillaahi rahmaani rahiim. allaziina kafaruu wa sadduu an sabiilillaahi adalla a'maalahum. walladiina aamanuu وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا ومن بطل وأن الذين آمنوا تبعوا حقا ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أكأمتموهم فصدوا الوثاق وإما منا بعد وإما فداء حتى تتوالق الأرض أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله لن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم جنة jiital ci mbooloo mi ñi yàlla jiital ci mbooloo mi mooy ñu bokk ci daayira bi nga xam ni mooy xayrukum man taallama alquran wa allama yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee ci gën ci nit ñi mooy ñi jàng alquran di ko jàngale kon oustaz mu ngi leen bu baax su ma nee oustaz Mouhamed rek ñoom ñëpp dugg nañ ndax Mouhamed Saïd lañ dégg ak Mouhamed Muxtaar ak Seydina Mouhamed sidna sidna ali waaw kooku mooy seen général Mouhamed yow mi leen doon introsé danga am foo tëjee fu doy waar muy Moustapha bi nga jox ñu tuddee ko yonent bi mu toog ci sées boobu jàng suratu Mouhamed ñu tëjee ko jotaay bi muy allazina kafaru muy tamit beneen mbir mu ci dollee ko yal yàlla taxaw ko bu ñu nuyoo sang jotaay bi rek yow Saas ñu ngi leen di nuyu bu baax comme ni ko Mouhamed waxee rek bu du woon yéen concours bi du sotti ndax yéen a sonne xale yi ba ñu mën lii kon yàlla yàlla taxawu leen ci barke bi di nuyu sunu baay Dagana jur di ko ndokkeel ci bis bi ndax lii tamit mooy sakk baay buubu dafa am benn xale bu jàng alxuraan comme nii rek procureur bi daal di daanu bi mu daanoo mu jël carte visite am jox ko xale bi ne ko heure boo ma set boo ma soxlaa bu la am audience ci man directement xale bi ñu toog ay fan rek ñu ramasse papam bi ñu ramassé baayam mu dem police di ñaan njekk ñu gàntal ko mu woo procureur na ko man de sama papa lañu jàpp mun ko kan la mun ko man la xale bi doon jàng alxuraan ji mu ne ah yow de loo bëgg da nga koy am daal di woo commissaire na ko xale boobu de sama xale la commissaire na ko ah papaam li mu def doy na war de ndax fan ko jàppee dem ak ni mu màndee ak melokaan wa mu mel ak ni mu doon tërbilee dooy na waar lool waaye comme xale bi sa dooma dinañ ko bàyyi mais procureur li ko yéem mooy xale bi ni mu mel ak way juróom ni mu mel mu daal di woo xale bi ne ko man li ma jaaxal ni nga baaxee moo ma jaaxal ak ni sa baay bonee xale bi ne ko juum nga sama baay bonul de sama baay baayam moo bon waaye man sama baay mbaaxam moo feeñ ci man ba nga bëgg ma ne naa lay seet si ba mu jàngal ma alquran kon nu ñu mel rek sunu coonoog woy jur yi la kon Baye Dagana ñu ngi lay ndokkeelaat ci bis bi ak sa mbooleem njaboot yépp Baye Buubu Baye Boubacar maa ngi lay ziyaare bu baax Baye Baye Dieng sunu papa am di Guèye sunu papa Cuuca sama baay Alaaji Buubu moom laa bëgg a tëjee ndax bu ma ko nuyoo rek du ma mën a nuyuwaat keneen di nuyu nag ñu teew ci jotaay bi yépp di beral nuyu nag sama papay bopp bay buub dama am sama pap ba mu xam ma ma adopté di sama bàyyi bopp muy bàyyi Mortala Samb bi yal na yàlla dëgëral ko sàmm ko yaa xadi Juuf ñu ngi leen di nuyu bu baax di nuyu sunu yaay bàjjan benn ak sunu yaay topp jotaay bi yépp maxtaar ñu ngi leen di nuyu bu baax di nuyu Sana di nuyu président Pastef Mouhamed Diouf ak waa Pastef yëpp di leen ziyaare jaaji ñu ngi lay nuyu bu baax yow tamit dañu wax ni rek bés bii baay buubu bés bii bonus na ci ñun ndax defe naa ne koñ bii ku yenduwul ci tànt bii yenduwoo fu ko gën ndax xale bi ko sonne li ngay xalaat mooy bu jàngee ba am ay diplôme français ba dem France jàngi da yaakaar ni day day day roy yi nasaraan wala leneen waaw bu jógee France ñëw samp daara ji mais loolu ku ne da nga cee war a mooy jàpp ci su fukki loxo kon Serigne Cheikh ñu ngi lay ndokkeelat di ñaan li nga mën ren yàlla na nga mën lu ko ëpp déwén ci barkent bi sallallahu alayhi wa ah xanaa dañuy barkeelu rek ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba fu temps jeexee rek bu ñu signalé ñu arrêté waaye maa ngi nuyu Mouhamed Samb moom sama doomu baay la baay Abdou Aziz Samb waaye muy sëñ daara moom it ni nga ko gisee nii muy ko wàcce boppam macha allah Mouhamed yal na yàlla dëgëral la yëkkati say daraja ci barkent bi sallallahu alayhi wa maa ngi ñaan ku toog ci jotaay bi rek nga jàng benn fatiha salaatal fatiha ñu àddiyal ko yonent bi xaj Malick ba maa ngi lay nuyu bu baax bismillahi rahmaani rahim allahumma salli sama papa buuba bés bi nag sëñ Cheikh da ci rendre la hommage sunu bàyyi alaaji Cheikh Samb kon yàlla ko yàlla boole ci ñaan yi yaa zuli yaa zuli fama li hindi nasibun fi faadi daxni wala maylaay يعزو لي فما لهن نصيب في فؤادي دعني ولا ميلاي إن حبي لمثلهن حرام فأرحني حالي خير خفاي يا عزولي فاصرف عنانك عني واطلب الخير إنني في فناي قد سقاني كأس المحبة ربي من فيوضات حاتم الأولياء حمر سوق من ذاقه لا يبالي من أتى لائما بدون امتراء سيدنا محمد حبتا للمسلمين نجاة وأمان من هول يوم لقائي إن حب النبي حالة لحمي وعظامي ودم دون رياي سيدنا محمد هج سوخي لخب خير البرايا سنگ بي مظهر لطف أكرم الكرماي سيد المرسلين هادي البرايا لرد الله والد الزهراء بطان بي فردي ونفلي وشرابي ومنيتي ووزاي هو بيتي وزمزمي وحطيني ومقامي ومروتي وصفاي سيدنا محمد حرمي مسعري مذابي وركني حجري قبلتي وغار حراي هو حلي مسعاي باب السلام ومتافي وبهر عرش عناي أنا كبك سيدنا محمد يسربي قبتي قبايا بقيئي أهدي زفتي وكنز الغناي هو حلي هو حلي مسعاي باب سلامي ومطافي وبهر عرش عناي من بقنا كبر سيرنا محمد لا الأمي فإنني فيه يا من لوم مثلي ظلم la dal uqalaay siduna muhammad falillahi ma qad kaana layla wilaadi tadaa bil iwaanu wa huwa ku def ni yàlla na nga ziyaare siduna muhammad sidaaji malik neena falillahi ma qad kaana layla wilaadi tadaa bil iwaanu المرسلين أنا صبي سيدنا محمد وأني الملك بتوتي كي وفي حمود النار غور بحيرة تلالى نجما في وهي تميل كان بني اليونان عدات لبرحائن حصورا لحيسر هواتف البصرى للولادة تتيل سيدنا محمد العظيم ليل الولادة حبة إذا لم يكن نحو الحرام عدول أتت ستنا مسلا حليمة سعادة وإرداوا خير الأنام فدول سيدنا محمد كي ومن هرات ما لا يبان بمسحل وسق لها سق الفؤاد خليل سيدنا محمد كي وسق له بدر منصور جزاء لقلبي وليس بالظلام الأبيد جليل سيدنا محمد واجي تقلبت في الأسلاب من سلب ساجد إلى ساجد ما زال مد كراسيا فلما رنونا من سنة البدر وانجلا لنا ستر حتى زال من ود ما بيا سنج بما رسول حميد حامد ومحمد من سما فوق السما كنساميا كي هو دفعة العثمان يذل بذلي يمن بلا من وينفي المعصية سيدنا محمد باي مرتضى waajaa toog ca jàkka ja jàkkaarloog moom di ko xool di jooy moom siduna di ko xool di jooy Moustapha ne ko lan la mu ne ko xanaa bëgg la yow siduna Muhammad Moustapha ne ko noppil ku mu bëgg bu ëllëgee altine la jëm mu ni ko loolu amul werent yow sang àdduna ak laaxira ku la bëgg dem aljana ku la sopp dem aljana bu ko tuddee doom dem aljana buñ la ko tuddee nga dem aljana ba ko dem aljana mu ne ko waaye doomu aadama yi bokkuñu damay ragal bu ëllëgee nga nekk ci VIP nekk ca kaw ca aljana ma ne ci suuf di la bëgg a gis te du ma la mën a gis yow Sidina Muhammad doomu Abdoulaye Diak Amina gàll ko loxo na ko noppil almar maa aman ahaba kenn ku ci nekk ka nga bëgg moom ngay bokk losement ca aljana maa ngi ñaan ku toog ci tànt bi bu ëllëgee yàlla nga dëkk ak yoneen Sidina Muhammad gi nga sang boobu Sidaaji Malik nee na kama qadraat عجوبة أمما بدين بيوم لها من ذا النبي نزول من دي بقنا كبق سيدنا محمد يا خدي جوف سمام سيداج مالك نينا dañoo jël Abdalaay may ko Amina Abdalaay mooy baayu Sidina Muhammad yaa Amina mooy yaayu yonneen waaye biñ leen mayee seen jouru mariage ca guddi ga dañoo ànd ñoom ñaar leer ga tuxoo ca Abdalaay dem fanaan ca Amina am lu ñëw bëti mag nan mag yeewu leen waa Makka parfum wu leen waa Makka cuuraayu leen lal leen tapi siduna Muhammad wàcc na ci biiru yaayam Xadijatun waalin wa banu a zatin wa man bidaa بين خديجة وعلي وطلعا زكي ومن بدعته الله نبي وعلي الأولين وبلوها ستي ومن بدايتي أيوة أجمعين bakar seeni loxo yi ca kaw xadiijatul waaleen wa banu aasati wa man bidaati jiiru Thank you. خديجة وعلينا وبرا ستي ومالداتي الله نبي وعلينا سلام ربنا كسب سن فالو مكة سلوخي خديجة والين وابن عم ستيل ومن بدارتي ثم كن عوف وسد زايا وخيتك ساميا وخيتك ساميا أبو بكر ساميا أين عمر ساميا أين علي ساميا أنا سبي محمد أنا نيبك محمد لخوتي كو أنا سبي محمد أنا نيبك كنا بجار اللغة أنا كنا بجار اللغة جبلنا مقال ماما جبلنا مقال ماما جبلنا تخاو مقال ماما soppi Sëñ Fallu Mbàkke yi soppi Sëñ Fallu Mbàkke yi ku fi murit fi tasul soppi Sëñ Fallu Mbàkke yi soppi Sëñ Fallu Mbàkke yi fi ku fi bi jaral ana soppe yoneen fi leen kun na bi jaral loxo soppi sëñ Babacar Si soppi sëñ Babacar Si ana kuy taalibe seex <laughs> kuy ku na bi jaral juufe na aye tay nami jara e loxo ci ko way nami jarar nami jarar loxo nami jarar kuy bege yonen loxo nami jarar kuy bege yonen loxo nami jarar naa ni ñaaral loxo ana soppe yoneen bisu alxuraan bi lee loxo yee doomi abdalaay doomi abdalaay jee doomi abdalaay jaa doomi Abdalaay Jaan doomi Abdalaay ji doomi Abdalaay ji doomi Abdalaay Jaan doomi doomi Abdoulaye Dieye doomi Abdoulaye Dieye doomi Abdoulaye Dieye doomi Abdoulaye Dieye Aminata yaay Dieye Aminata yaay Dieye aminata yaay jee aminata yaay jaa aminata yaay jaa aminata aminata aminata yaay yónneen aminata yaay ji jee aminata yaay jaa aminata yaay jaa alimatu saadiya yaa nampal sama yónneen doomi abdalaay ji jee doomi adalaay jaa doomi adalaay ji soppe na bi yaa ngi soppe na bi yaa ngi soppe na bi yaa ngi soppe na bi yaa ngi soppe na bi yaa ngi soppe na bi yaa ngi soppe na bi yaa ngi soppe na bi yaa ngi soppe na mi yaa ngi soppe na mi yaa ngi ana soppe yi sama yonen soppe na mi yaa ngi soppe na yaa ngi soppe na mi yaa ngi ana soppe yi yonen seen loxo yi jàkkam ana soppe yi yonen seen loxo yi jàkkam basa ana soppe yi yonen seen loxo yi jàkkam أنا صبي سر خيرك أنا كنا بدارا سلو خيرك أنا كنا بدارا سلو خيرك أنا كنا بدارا كنا بدارا لو خيرك أنا صبي كنا بدارا لو خيرك تقول المقال يا نن تقول المقال يا نن du leen màggal yónneen du leen taxaw màggal yónneen yónneen bi jar na ko Mamadu jar na ko yónneen bi jar ko Mustafa jar na ko ana ku nabi jaral ku nabi jaral jugal taxaw ku nangu na nabee la gën jugal taxaw màggal yónneen ku nangu na nabee la gën jugal taxaw màggal yónneen nangu na na beel a gën na taxaw magal yoneen yoneen bi jar na ko Mamadu jar na ko yoneen bi jar na ko Safa jar na ko yoneen bi jar na ko Mamadu jar na ko ana ñi bëgg sëñ Fallu Mbàkke seen loxo yi jàkkaw ana soppe yi sëñ Saaliwu seen loxo yi jàkkaw ana ñi bëgg sëñ Saaliwu seen loxo yi ca kaw ana saalihaat yi loxo ca kaw màggal yoneen ana ñi bëgg sëñ Fallu yee seen loxo yi ca kaw ana ku nabi jaaral ku loxo ca kaw ana ñi bëgg sëñ Babacar seen loxo yi ca ca kaw ana ñi bëgg sëñ Babacar seen loxo yi ca kaw taalibe seex ana ngeen ana taalibe seex yi taalibe rafet mën sañse kuy taalibe seex loxo ca ana ku nabi jaral sa loxo yi ca qawla fi yawmin bismillahi min ashaytaan rajim bismillahi rahmaani rahim rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisaani yafqahu xawli mbokki jullit yi mbokk yi fi teew yépp ñoo ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen ñaanal jàmm di jiital ci nuyoo bi oustaz Alioune Sall xafisahullah waraahu ak mboolem ñi mu àndal xam naa dañuy jéem a jublu ci joxe résultat yi nga xam ni moo fi jaar ci musaabaxatul quraaniya biñ doon amal sànq ñii ñoo ko seqoon ku ñuy wax Baye Jim Buso ak Sëriñ Baara Seck ak Mouhamad Dieye ak Mahawa Diallo ak Mouhamad Xaali Samb juróom ñooñu ñooy ñi nga xam ni ñoom ñooy doon jongante yàlla dogal na am jury bu fi teewoon boo xam ni ay jàngalekat lañ doon ñoo xam ni ñu xereñ lañ ci njàngaleem alxuraan ci ahkaam yeeg yi ci aju yëpp ñoom ñoo tooga nii doon leen atte wax dëgg yàlla teg atte bi nag ci atte bu maandu macha allah bu ko defee ki nga xam ni moom moo jël p moom mooy Maaxawa Jàllo moom yàlla dogal na euh, concours bi ñu doon def macha allah moom moo jël PEU ñoo ngi doon laaj 100 points waaye am na 90 points macha allah kon ñu tàcc ko bu baax a baax a baax a baax a baax macha allah ki nga xam ne moo ci topp jël deuxième bi mooy Mouhamed Dieye moom it ñoo ngi doon laaj 100 points waaye am na 87 points. moom moo ci topp jël deuxième bi ñu tàcc ko baax a baax a baax a baax Mouhamed ki ci topp jël troisième bi mooy Serigne Baara Seck moom moo ci topp macha allah ñoo ngi doon laaj cent points waaye moom am na quatre-vingt-quatre points ñu tàcc ko bu baax a baax a baax a baax sëñ Baara Seck waaw kon euh, mi ngi noonu cinquième bi incha allah moom tuddoon nañ ko sànq. moom it teewoon na bu ko defee dañuy continuer rek ci jox leen li nga xam ne mooy seeni diplôme incha allah bu ko defee kilifa yi ñoom ñu ñëw bay jiim bàyyi jiim buso moom moo jël quatrième waaw bàyyi jiim buso moom moo jël quatrième ñoo ngi doon laaj 100 point waaye am na 77 points virgule 50 moom it ñu tàcc ko bu baax a baax a baax a baax macha allah bu kon dañuy jàll ci jéem a joxe diplôme yi allah bu ko bàyyi jim bu sa moomu ñoo ngi sàkku ci Boubacar Dieng mu ñëw jox ko diplôme am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 invité nañ ko fële ca RTS macha allah loolu it tabarkàlla nga xamaale ko baax a baax loolu firnde la ci li mu jël première incha allah nga defal ko ñaan bu baax a baax a baax fa tabarakallah incha allah maa yëkkatilal oustaz benn aaya rek incha allah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 إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلا الرحمن له الرحمن على العرش استوى له ما في السماء السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى صدق الله العظيم الله eh, sunu magum daara di Oustaz Ndiouga maag moom lañ boole prix bi ñu jox ko soxna Hawa ñu joxe ko ci turu suñu DG eh, soxna Fat Diallo madame Diop joxe ko ci turu suñu DG commercial Fat njaay sekk man nag liñ ma boolee maag yow nu bokk jox gone gi sarafun lii ndax lu mat fukki at a ngi nii at mu jot mu ne di waxal Ousseynou Sall bés du ma mën a fexe ba teewe ko <laughs> ren nag nee day ñëw ca kër ga buub ma indi nee na jaral na ko fanaan fa buub ma indi <laughs> yàlla yàlla gën noo sàmm sotti ceeg def ci la jërëjëf tawfiix incha allah thank you